nga xamante ne tasaaroo na ci réew mi léegi gis nañ ne góor jigéen ñi bari nañ lool ci ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi en plus tamit am na ci ñu koy dund ci biir réew mi moo xam ne nëbbu moo xam lu feeñ ci biir euh, loolu nga wax baatu góor jigéen bu ko ci tuddee yan solution lañ ci mën a def ak tamit lan mooy li nga xamante ne mën na ko jural réew mi ci wàllum loolu nga xamante ne mooy mere suñu borom. ak ngóor jigéen léeg-léeg sax da nga am kersa ci waxtaan. Mm-hmm. ndax baat bi sax tudd ko dafa rëy lool. ndax nekk lu lu waaye définition góor jigéen ci boppam ñu bari sax dañ ko dul bàyyi xel ndax ñu bari nañu jàpp ni góor jigéen mooy rek kuy koo xam te ni euh, maanaam day day day nuru nuru jigéen waaye ca la bokk nag ci ay la ci góor jigéen moo tax yonte buy buy wax jikko ju ñaaw daan ku jikko ji nekk ci yow lenn ci jikkoy nangam mi ngi yow koo xam te da ngay def boo amee rendez-vous faussé ko lenn ci jikkoy naafeq mi ngi ci yow lenn ci jikkoy naafeq nekk ci yow taxul nga doon naafeq cent pour cent naafiq 100 pour cent rek mooy an nifaaqul mukaffir mooy naafiq goo xam te ne day génne nit ki ci diine kon suñu nee góor jigéen définition bi dëgg-dëgg ci lislaam mooy nit koo xam te ne nii dafa jàppe boppam jigéen maanaam tànn gi ko suñu borom tànnal mu nekk góor mbaa mu nekk jigéen moom dafa faa bàyyi tànn nekk nekk contraire loola. nga xam ne dafa am nañu wax feebar bu ñuy wax suzuz jins yi maanaam feebar la boo xam te ni ci jins lay amee waaw. su ko defee nag kon nga xam ne tubaab yi sax chose lañ ko tuddee chose mooy loo xam te ni dafa dafa néew ngir ak bonam ba kenn ñëwewu ko ñoom sax noonu lañ ko tuddee nga xam ne kon ñoom seen bopp xam nañ du lu baax la preuve mooy buñ toppee dëgg-dëgg wax ji sida ci la jógee. Mm-hmm. xam ne diine yëpp a ko teree woon kon bu dee ci suñu mujtama ñu mujtama Sénégal yi bi dañoo bu njëkk dañ daa wax naan diw de góor jigéen la diw góor jigéen la ndax waxin wa mm-hmm. wala doxin wa wala colin wa. waaye fit wi sax ñun ñi nga xam te ne dañ ko yor ci ngone sax bi ñu ko daa dégg daawuñu xalaat ni àgg na ci di def rapport sexuel ah ah diggante entre góor ak góor dañoo jàppoon ne rek mooy koy sol yére jigéen wala kuy wax waxinu jigéen wala kuy doxi doxinu jigéen loolu la yonente bi teel a xam nag moo tax mu waxoon ni man tashabbaha bi xaw qawmin fa huwa minhum ku nuru nuru lu aw nit ci ñoom la bokk kon loolu lañ cay déggee ma foom bi mooy kon kuy nuru nuru lu jigéen te doonoo ko kon suñu boroom subhaanahu wa taala dalay dalay dalay dalay dalay rëbbu comme ni nga xam te yonente bi alayhi salaam nee na euh, ku jëf-jëfi euh, waa kër waa kër lóot xaw ma lóot euh, nitu sawara ngay doon moo tax mu ne faqtulul faaxila wal bi bihi rey leen ki koy def ak ki nga koy def yëpp. léegi bu rey leen ki koy def ak ki nga koy defal yëpp mooy wane ne àtte lislaam indi na mais lan moo tax léegi ñun askan wi. Euh, lan moo tax léegi ñun askan wi tamit ñu bàyyi xel ne Sénégal atte woon ci diine léegi lan mooy solution bi fii Sénégal nga xamante ne moom euh, l'islam dafa wax ne góor jigéen fu ñu ko gay fu ñu ko gis nañ rey nañ rey ko koy def ak kañ koy def léegi fii Sénégal atte wuñ ci diine léegi luy solution bi. waaw xam nga attey charia yi boroom xam-xam yi fiq yi dañ ciy faral di am faram yu ñu ciy def mën nañoo jàngale théoriquement nii ku def nangam atteem mooy nangam comme ci ñu ne ku naan sàngara atteem ñu dóor ko ay yar. juróom fukki yar ku xas atteem mooy ñu door ko juróom ñett fukki yar ci misaal ku njaaloo atteem mooy ñu door ko téeméeri yar ñenn ñi génne waale ko dëkk ba wala tëj ko sa amaat loolu ay atte la yu sharia ku rey ñu rey la ku njaaloo def fekk dangaa nekkoon ku sangaw amoon jëkkër wala amoon boroom kër wala amoon soxna tamit dañ lay rey yooyu yëpp nag da cay dugg àtteb góor jigéen li Yonent bi sallallahu wax ne nañ ko rey waaye lislaam na saa yi waxee lu mel noonu tamit teewul da koy organiser ki muy jokkool foofu moom lislaam mooy ñi yor maqaal yi dul xukm yi mooy ñi nga xam te ñoo yor euh, ñoo yor ñoo yor caabi atte yi nga xam ne ñoom euh, ñooy atte ci sharia ci la ñuy dugg maanaam ñi nga xam te ni ñoom ñoo yor atte yi rek nga xam ñoom ñoo sañee wax ni diw bàyyil nangam mu bàyyi ko xam nga buñ ne rey leen ki koy def lu caaga ne am xaadim bu sa rek mooy dajeeg benn góor jigéen ci mbedd mi rey ko loolu mal organisation ci lislaam bëggul loolu lislaam danaan la sax lu bon boo ko gisee su la leeree nii boo ko soppee leneen lu gën a bon aju ca sabab sababoo ca wala tolloo moom ci mbon sababoo ca kon da nga koy bàyyi noonu loolu mooy secret bi tax ngay gis léeg kilifa diine yi ñu noppi ci benn mbir yow mi sa xam-xam bi nga naan ah suñ bi lu tax waxut ci lii fekkte ma ma ngi koy jàng dirasat amiqa ay njàngin yu xóot yu bari yoo xam te ni moom bu la ko waxoon tey yow yaa njëkk taxaw sax ni ko ëpp naa weddi bokk na ci misaal rek léeg lu bon dana am kilifa bañ caa wax ngir bañ koo may promotion mu mel ni kuddu mooyu fa enrid anhum waizhum faizhum tamit na nga leen na nga na nga leen na nga leen waar waaye fa enrid anhum wa tawakkal nag soo demee ba xam ci ñoom ni ñii duñ dëppaat na nga leen dum mooyu wan ginnaaw wan leen ginnaaw fa in jaawu ko fax kum baynahum aw enrid a wax aw enrid Euh, ah, kon inharaat day am léeg rek waaye li ma bëgg a foofu rek mooy maanaam bu lislaam ne rey leen leen du caage ne rek ku leen gis ci mbedd mi war leen rey déedéet ku leen reyoon ci mbedd mi jamono ji lislaam day attewaat ci sa kaw dal ci sa kaw du la jàpp ko ku rey nit ci sharia moo tax yonente bi alayhi salaam bi muy jàngale ni ñuy rey dafa wax ni bakkana doomu aadama du dagan lu ci ñetti mbir bi ci njëkk mooy murtad bi génn ci diine ak ki nga xam te nii dafa sangoo pare njaaloo ak bakkan ak ku rey bakkan yooyu nag euh, du du xasra maam du caaga ni yonent bi jublu ni yooyu rek ci la ñuy reyee jublu ci ni yooyu rek ci la ñuy waaye li mu ci mooy bokk na ci yi ñuy reyee li mu waxaat ci ci lii tamit maanaam bokk na ci li ñuy reyee tamit ba tey waaw su ko defee kon euh, liñ li ñuy déggee foofu rek mooy du caaga ne kon da ko def amru ashwa yi loo xam ne ku neex nga def lu la neex déedéet abadan waaye ñiy àtte ñoom suñ ko defu ñoom ñooy am bakkaar waaye askan wi ñoom mën nañoo bañ am bakkaar askan kañ la am bakkaar mooy bu ñu ko jéemoon defal seen bopp la preuve mooy eh, boo demee ci kutubul eh, diya ak kutubul oqdiya téere yi jàngale atte ci charia dañ naan la ab dëkk sañ nañoo ñëw ni ñun dañuy atte ci charia ci lu doonu dagg loxo ak lu doonu dagg loxo ak rey mën nañ ci atte ci charia maanaam ku dóor ku njaaloo ñu dóor la téeméer yar ku xas ñu dóor la ku naan sàngara ñu dóor la ci kaw nga bëgg ko waaye bu fekkoon bëggoo ko sax kenn sañu la cee forcé même bu fekkoon sax maam l'islam la ñuy àtte boo ko bëggul l'islam musta wax ni kaay ñu dóor la par force déedéet iqraar ngay def da ngay ñëw ñu dóor la la preuve mooy yonente bi saam nee na ku def bàkkaar yu mel noona su la yàlla suturaalee suturaal sa bopp alxamidiya ak maïs bi ñu jaaloo loolu la yonente bi saam wax am na ci koo xam te ni bi mu jaaloo bañ rey ko ba pare yonente dafa wax ni ma nañ koo bàyyi mu suturaal boppam mm-hmm. comme yàlla suturaal na ko mm-hmm. léegi nag kon li ñuy déggee foofu mooy kon maanaam ab dëkk sañ nañoo atte ci lislaam ci lu dagg loxo ak rey loolu la borom xam fiq yi wax ci loolu ci lu wér léegi ñu dugg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuyoo ci turu droit de l'homme xëy na ñoom ñi ngi ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen góor jigéen ñi nga xamante ne ñenn ñi ne ay lobby ñoo ne seen ginnaaw ñenn ñi ne ay formation ñoo ne seen ginnaaw waaye lobby yooyu nekk seen ginnaaw ak formation yooyu ak ñiy taxaw droit de l'homme tam leer na leen ne li ñuy engagé woo di ko di ko défendre lu l'islam gërëmul la ñooñu lan mooy seen atte ñoom waaw xam nga euh, góor jigéen moom ku ne xam na ne ay lobee na seen ginnaaw boo demee ci réew yi Occident yi sax ci nga koy gën a xamee te ñaaree boo demee ci secte franc yi fi ñuy defee seen réunion am na bu nekk cent quarante ci street ci New York nga xam duñ nëbbatu sax ñoom boo demee daanaka ngay xam ni ñi koy taxaatu yi ñëpp ñu ci ëpp ay góor jigéen la ñuy doon ay góor jigéen la ñuy doon léegi su ko defee nag. Euh, lobby yi nag seen ginnaaw ay lobby yu am doole la ñuy doon.